normal yéene kaay gi ne na en tout cas li am ba de sàll mooy tournée économique bi na ci kenn koo xam ne faatu na ca diiwaanu Ranérou yéene kaay gi ñu xëy fekk fa Moussa Tina daat nay wax ne nervi yi nga xam ne ñoo ànd ma Sall li nga xam ne moom lañ ciy sàkku maanaam ñu ubbi sab enquête parlementaire yéen kay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa Alioune Tine nee na nag jamono ji maanaam almet la ñu yor di ko foowee ak nervis ak milice yi nga xam ne moom la ñu gis loolee jurul jàmm te Sénégal réew la moo xam ne am na pétrole am na gaz nañu def ndànk nañu def doucement Alioune lu jëm ci ñetteelu mandat bi nee na nag léegi def ñetti mandat ci bopp réewum Sénégal mu munta nekk impossible yéen kay gi di source di ñu xibaar naan jaar na Linguère bi mu jaaree Linguère jaajëfal na ki nga xam ne mooy Aly Ngouille Ndiaye ak Sidel Sow mi nga xam ne mooy coordonnateur bu APR ci département bu Linguère journal bi nee na fi nga xam ne mooy Daara Jolof foofee nag Macky Sall dafa toroxal ñi nga xam ne ñooy waa Daara ndax dafa jaara Macky Sall taxawul maanaam nekku fa sax di wax ak ñi nga xam ne maanaam ñoo ko fa gàttandoo ñenn ci askan wi nga xam ne ñoo dëkk Daara loole nag dañoo jàpp ne manque de respect la yéene nee na en tout cas li am ba na ci Sénégal yoo xam ne jamono ji mere lool Macky Sall mere mi nga xam ne sénégal yi mer nañu ko Macky Sall mer maa ngi gën di yaatoo yéenekaay gi de Le Quotidien nee na général Jean Baptiste Tine mi nga xamante ni moo nekkoon au commandant de la gendarmerie daat nañu koy dàq ana lan moo tax ñu dàq ko journal bi nee na dossier capitaine Omar Touré ak manifestation yi nga xam ne moo fi amoon ci weeru mars jëm ci mbiri Adji Sarr ak Ousmane Sonko bokk na si li tax général Tine ñu daal di koy dàq yéenekaay gi de La Tribune nee na bu ñu waxante dëgg jamono ci malaise dëgg moo am ci biir gendarmerie yéenekaay gi nee na lan moo tax général Tine ñu daal di koy dàq te ñetti weer rek moo tere mu daal di dem retraite en tout cas coow li bëri na ceek les suuxul yi nga xam ne moo ci am général Moussa Fall mi nga xam ne jamono ji moo nekk o commandant de la gendarmerie bëri na ay tuuma yoo xam ne gàll nañ ko ci ak ndoddam yéen kaay gi di réew mi ko di jee ñu xëy fekk fa Sator Mbaye bu AFP wax na ci tournée économique bi wax na ci départ Moustapha Niasse ci bopp AFP wax na ci nervi yi moom Sator mbay daat nay wax ne en tout cas bu ñu demee ba nga xam ne danañu wut koo xam ne mooy wuutu Moustapha Niasse ci bopp AFP ci démocratie bu mat sëkk la ñu koy jaarale bi ñu ko laajee ci nervi yi nee na amul benn nervi boo xam ne moom Sator gis na ko yéenekaay gi xëy dañu xibaar naan ñu jàngalekat yi nga xam ne ñoo boot ci kuréel gii di SAES ñoom nag dinañu amala ñetti fan yoo xam ne dañu koy gréew ci université yi la ko waral bokk na ci agression yi nga xam ne moom la ñuy def jàngalekat yi yéenekaay gi de la Soleil xëy dañu xibaar naan ñu yi jamono ji ma ngi def opération boo xam ne jëm na ci xeex ñàkku karange gi nga xam ne moom la ñu nemmee ko ci banlieue bu Ndakaar fu ci mel ni Kër Massar Mbaaw ak Tivaouane Peulh yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu Omar Gueye ak tournée bi nga xam ne doon na ko def ci kër Ndiaye Lo Omar Gueye dootu ko dolleeti ndax ba mu demee gars yi ay xeer la jël daal di koy tëbal la tax ñu mane Omar Gueye bokk na ci découpage bi nga xam ne amal na ko yéene gi di Libération naan ñu ajjuma ji nga xam ne moom la génn ca tubaab jëlaawo hôtel Pierre de Lys foofe ay samba booy ñoo fa wàcc yor ay arme yeew ñi nga xam ne ñooy gardien yi dugg ci benn chambre fekk fa ab couple jëkkër